da nga nekk PDS euh, ngeen quitter le pouvoir votre parti a été malmené injustement malmené toujours. le PDS a été malmené on a tout fait pour déshabiller déstabiliser euh, désacraliser la la la la la la machine et l'histoire euh, de ce parti là pourtant taxul euh, ses ak yéen. au début les deux des premières années de l'alternance metti woon na ci ci yéen n'étiez pas à l'aise amoon na genre euh, xatal taxul ngeen ngeen versé dans les dérives xam nga tamit ku wax lii wax la ca des le pouvoir daf na ay dérives euh, justice bi am na lu bari loo xam ne nit ñi ànduñu ci mais tamit euh, li tax sénégalais yi taxawaat dit sa li tax sénégalais yi taxawaat di xoolaat niñ leen porté woon ñu moytu ci c'est-à-dire euh, on on on on on condamne Ousmane Sonko le premier le 2 le 3 juin et même il a eu les mêmes événements en 2021 ñuy utiliser ay cocktail Molotov di attaquer des édifices publics di attaquer des des biens privés et publics di ay ay sénégalais di ci dee euh, ay nervis de part et d'autre di affronté wu ay xale di ci dee et des responsables de l'opposition taxaw pensant que c'est fini pour Macky Sall di wax xale yi dam leen ngeen xeex di di di pousser les les les jeunes à investir le champ de la violence et puis di naan li ci des bariwul il faut déloger le pouvoir de de de Macky Sall le le peuple sénégalais c'est un peuple mûr. non mënuñu euh, ànd avec des hommes savez, qui agissent comme ça. non euh, vous savez euh, xam nga yaa ngi raconter une histoire je dirais même yaa ngi nekk di def un récit. mooy di ko jékki-jékkal. non jékki-jékkalu ma ko non ça s'est pas passé comme ça non Maïmouna ça s'est pas je suis désolé non ça pas passé comme ça ça s'est euh, da nga da nga euh, noppi ci réellement les véritables causes gis nga Maïmouna vous ne changerez pas ce pays et on ne changera pas pays si on ne s'attarde pas sur les causes dafa yomb et malheureusement moo ça me fait très mal de voir ce pays là que nous connaissons que nous aimons euh, egg euh, situation boo xam ni. Euh, dañuy fërëx fërëx rek di dem et on ne s'arrête pas suffisamment ci li xew ci li am et en 2021 le président Macky Sall dafa def benn discours boo xam ni personnellement qui m'avait beaucoup touché quand il disait euh, je pense vous avoir compris et il s'adressait à sa jeunesse en réalité je pensais en fait que c'était pour mettre en avant ay politique publique loo xam ni réellement lii du am mettre en avant benn démocrati euh, démocratisation boo xam ni dialogue dina am déggoo dina am dinañ am sens du dépassement mais malheureusement dafa gën a tar dafa gën a tar nekk encore dans une logique de complot être dans une logique partisane nekk ak ay nitam et et finalement cette élégance républicaine là moom moo manqué te may mun nañu wax mbir bi da ngeen di fàtte beaucoup de d'hommes politiques saa yu ñëwee dañu ne ni plus jamais un chef d'État nekk un chef de parti. nañ nañu taxaw bu baax ci loolu quoi c'est pas c'est, c'est, il faut s'arrêter là-dessus est-ce que aujourd'hui dama lay laaj est-ce que lu ñuy dund nii may mun a c'est pas simplement parce que le président Macky n'a pas respecté engagement boobu la patrie avant le parti des fois je ne sais pas qui agit qui utilise l'instrument de l'État des fois j'ai le sentiment l'impression que c'est le patron d'une coalition des fois j'ai l'impression que c'est le patron d'un parti euh, euh, euh APR j'ai pas toujours le sentiment que c'est quelqu'un qui agit en tant que père la nation loolu nag c'est une cause boo xam ne essentielle et fondamentale te dès le début bëgg rocc ci prise bi foofu bëgg ko branché fële je dis franchement ce serait injuste deux je reviens à la résistance li nga wax noonu mooy on va marcher sur le palais et man dégg naa ko ci Macky Sall mu wax ko yow dégg nga ko. c'est pas suivi d'effet. waaw mais attends, attends. à l'époque c'était une prise de position violente condamnable. condamnable mais c'est pas suivi de alors bii bii lan la. ah bii bii lan les les événements qu'on a vécu au Sénégal mos dund nañ ko en deux en 2012. justement li tax amul. ah en en euh, euh, deux mille deux mille euh, deux mille deux mille douze. 23 mars. Vous pouvez fermer les yeux sur ces ah xanaa liiroo suñu ah? communiqué. non mais ci réew mi. est que opposition wala confrontation entre pouvoir et opposition est-ce que mas na yóbbu ci xanaa déggoo wax ji. mën lii du problème opposition du problème ah? pouvoir. c'est un problème sociétal. mais c'est du banditisme. non c'est du ah qui porté par mais c'est du banditisme politique par, qui porté par qui? Euh, porté par des militants d'un parti ah, politique non, non, non, il faut désolé, oser le dire pas, si c'est du banditisme ah, ah, politique là, tu mets à nu carrément sa appartenance là ce parce que là une question d'appartenance c'est-à-dire man mënuma comprendre Guirassy kon yaa ngi dédouané attends vous avez vécu le rouleau compresseur de la justice avec Karim Wade te taxul les PDS moo ëpp doole moo ëppoon doole foofu. mais je voulais te donner taxul PDS versé dans le banditisme politique. vous euh, avez vécu. tu utilises des euh, termes extrêmement avec avec avec Khalifa Sall. taxul Khalifa Sall ne nañu lakk Ndakaaru. ku àndut ak ñun nañu ko rey. Mm, euh, nañu violé xale yu jigéen ñi. Oh oh non mais attends vous ne pouvez pas toog fii di di di di bañ di di bëgg a gëm ci loolu. Moustapha Guirassy euh, Habib Sy euh, Ousmane Sonko. mais justement Maïmouna Aïda Mbodj Déthié Cheikh Tidiane yow yaakaar nga ni ñooñu dañu mën a am un discours comme celui-là. non ma ne non justement. des militants des sympathisants des gens ñu ngi nekk di véhiculer un discours de de de haine. en boobu moo yóbbu tey ñu ay xale ay sénégalais dugg ci bus lakk ay doomu sénégalais pas en train de rendre service non c'est pas rendre service comme ça mais vous aussi vous ne pouvez pas venir ici et dire a eu des dérives il y a eu de la résistance lii am ah, mënuñu ko woowee résistance c'est du banditisme non non non non euh, désolé désolé mënuñu ko woowee résistance je suis pas d'accord avec toi parce que moi ce que je dis est mon constat mënuñu ko woowee résistance euh, xam nga euh, une analyse et franchement xale boo xam ne mi ngi def ay erreur am su la neexee nga pes ko mais tubaab ba de des fois mu gën a muus day ñoo xam jéem a xam xale bi en réalité ce qui l'habite et le problèmes yoo xam ne moom mooy occasionné lii dama ne nga bëgg a juger ou apprécier la situation que nous vivons au pays dans ce pays là nga bëgg wax benn côté. non man waxuma mais moom ngay wax parce que. ba léegi dégg mën nga wax dara de l'autre côté ma ne ne la waxoo dara ma ne. waxoo dara seen décision de justice. ma ne waxoo dara oppression bi waxoo dara euh, euh, euh, droit yoo xam ne ñu ngi koy jalgati. fii dara beesu fi. ah non non non mais. li li li ça vous plaît comme ça. non il faut laisser comme ça. li Ousmane dund na lu ko raw. xalifa Sall dund na ko Karim Wade li mu dund moo gën a metti li ñu def Karim wadd amul lu ko gën a metti dañoo jël Karim Wade tëj ko injustement jël ko exilé ko aujourd'hui il peut pas être au chevet de son père may yëgal la dara sa attitude bii la ñuy condamné ñu ah? sa attitude bii la ñuy condamner dans Yewwi mais la jeunesse bi ak cette jeunesse africaine condamne parce que c'est pas parce que il y a ans les gens acceptaient l'injustice mais les gens se les gens que dañu war a continuer muy demee noonu. mais on je doit dis, se vous êtes en train de vous battre. et pourtant vous ne faites pas ce que ces gens-là font. non on est en train de se battre mais quand on se bat et qu'on vient te trouver pour te délivrer un mandat d'arrêt je dis en ce moment wax leen. parce que actuellement quand quelqu'un veut tenir une réunion dans son siège nga ñëw jël feu ay gendarme ay camion teg leen génne la c'est de l'abus parlez-en parlez-en